ñu ngi ñu placé mandat de dépôt ba war a sax ñu daal di fanaan seen guddi gu njëkk ca prison Mouhamed Diop Diop ci ay leexal. ab du fay ñu jàppandoon nag booy jinne ñu jàppoon ne dafa xaru njabootam di ko weddi kayitu kër docteur ñëw na ngir firndal ko. service bu anatomie et de cytologie pathologique bu hôpital général Idrissa Pouye génn nañ ab këyit buy firndeel ne ab du fay li ko faat mooy dafa xaru li ko dal bokk na ci anoxie cérébrale ak asphyxie mécanique maanaam dafa am lum jël takk ko fenn ngir mën cee xaru te loolu moom moo ko fàtt te nag buñ ñu seetee yaram bi document bi moo koy wax ba léegi amul lenn loo xam ne wane na ci ne dañ ko dóor wala dañ koo gaañ muy nag ab version boo xam ne njabootam ba léegi ñoo ngi koy wéy di ko contester maanaam ànduñu ci te ñoom nee nañ dinañu àndi ab contre expertise du fay dem na waaye ñu mu fi àndaloon mooy ñoom Boy Djiné ñoom juge bi placé na leen sous mandat de dépôt juge bu huitième cabinet moo yor dossier bi jël na Baye Modou Fall yóbbu yóbbu ko fi nga xamee ne foofu la dawe woon muy kaso ñeneen ñi tamit mooy ñu ko doon jàppale di daam si ak cheikh ñoom tamit gendarmerie jàppoon leen fële ca misira ñu ànd ak booy jine ñoom ñii dellu nañ ca nungu na suñuy xibaar lu ñu xamal ne nag am na kenn koo xam ne ab jigéen la dafa amoon xaalis boo xam ne jotoon na ko envoyé ab du Faye mi xaru moom mi yoon teg na ko loxo defeere ko ci parquet ñu placé ko sous mandat de ñeneen ñoo xam ne am nañ jafe-jafe ci mbir mi te dellu nañu ca kaso mooy ñetti ñi nga xam ne ay garde pénitentiaire lañ ñu njort ne ñoom dañoo laale ci évasion Baye Modou Fall keneen ki ñu teg loxo euh, di ki di kilifa moom tam mu ngi euh, commissariat central bu Kaolack moom nag di kilifa dañ ko sax teg loxo mu wax a dellu mu parquet moom mi nag di activiste bu Y'en a marre da da daman foofee fekkee doxub ñaxtu bu ay prestataires yu Senelec doon amal ñu nag teg loxo euh, loole nag ab délégation bu mouvement Y'en a marre di ko métti lu ba sax waral ñuy dem foofe ca Kaolack ci ajuma ji ngir waxtaan fakk waskatu xibaar yi keneen nag ku koy naqarlu teg boobu ñu teg loxo kii di kilifa di Malick Gakou nekk ca tournée politique ca Sine foofe ca Saloum nag ne xel mënul nangu daal ay nit di dox ñaxtu ñu leen di teg loxo ñu rek lu kii di Malick Gakou ak Ibrahima Diamé. li nga xam ne nii xew na fii si démb muy travailleur du Sénélec ne dañuy dox pour wax seen ñaxtu lu dóor leen li ma gën a metti mooy li ma fi démb fekkul ba fi démb fekkoon maay giite ba beneen yoon waatee la rek di marche ma ñëw ànd ak ñoom marche parce que quand même mais ku ñu nungu foqal ci sa alal ku ñu ndoot mais da nga war a yuuxu mais réew mi kenn moo ko moom ba Sénégal yi mënul yuuxu mais dafa doy waay dafa doy Sénégalais yi sonn nañu dafa doy loolu moo tax daañu ànd ak travailleurs yi ñu xeex li nga xam ne moo fi am te lii préfet bi def démb tegu ko fenn parce que ku def sa demande de marche dañ la war a permettre nga marcher pacifiquement jooy sa mbébét wax sa mbébét waaye nag dëkk boo xam ne nii kenn amatul droit wax sa mbébét lool mooy ban dëkk loolu nag la ñu bëgg mu jóge fi loolu moo tax ñuy xeex ànd ak opposition bi yëpp. ñeneen ñi ñu teg loxo ci weeru mars bi weesu jàppante yu métti yi fi amoon bay bakkan rot ci kii nag di Ousmane Sonko ne dina dem fekkee tey ab ndajaloo boo xam ne ñii di waa m ñoom ñoo koy amal ca place de l'Obélisque moom mi jiite PASTEF nag parti boobe di o militant yëpp dem fekkee na nu mel mu yëkkati lekk kàddu ci ab déclaration Pape Balla Gueye ci ngir jot suñu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh bokk ci programme bi national international